information. Sentiment de, de satisfaction, mais également santiment de accomplir sa mission ndax office national de formation professionnelle dañ ko fi teg mu nekk kuréel boo xam ni dafay gunge état du Sénégal gunge gouvernement bi si lépp lu jëm si wàllum tàggat ndaw ñi waaye tam jàppale leen pour ñu mun a am xëy kon tey bu yàlla dogalee. si li nga xam ni mooy bëgg-bëggu monsieur le ministre de l'élevage mu indi si ak euh, ses service ñu mel ni FONSTAB ñu signé ak office national de formation professionnelle benn convention boo xam ni dañ ko taxawal pour mën a accompagner ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu si lu jëm si wàllum élevage wàllum élevage nag bu ñu koy wax dafa nekk loo xam ni lu yaatu la ñun ñëpp ñu xam ni tey gouvernement du Sénégal son excellence le président Macky Sall gis-gisam ak bëgg-bëggam mooy Sénégal atteindre lu ñuy wax autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire nag buñ koy wax du rek ci wàllum agriculture peut-être agriculture dans sa grande diversité mais élevage aussi daf ciy jouer rôle bu réy ñu gis ni ndaw ñi bëgg nañu wàllum yar jur ndaw ñi bëgg nañu aussi lépp lu jëm ci wàllum euh, jur mu nekk nag loo xam ni Sénégal bu ñu demee ba jub ay tabaski wala ñu jub li nga xam ni mooy ay màggal wala ay gàmmu dañuy bari lu ñuy jéegaane bitim réew di ut ay jur. mais loolu nag pour ñu mën a am autosuffisance alimentaire il faut que soxla boobu nga xam ne dañ koy am si wàllum jur ñu mën ko am lépp si biir Sénégal loolu moo tax fonds bi nga xam ni moom mooy Fonstab ñu teg ko fi pour mu jàppale ndaw ñi waaye itam jàppale ndaw ñi si lu ñuy wax entrepreneuriat ndax tey boo jëlee wàllum yar. dafa nekk loo xam ni métier la waaye itam ñun ñëpp xam nañ ni am na ay nit ñu bari ñoo xam ne ñu ngi siy dund di si dundal seen njaboot tedd si am si lu ne kon nekk na métier boo xam ni tey bu ñu jàngalee ndaw ñi tàggat leen jàngal leen li nga xam ni moom mooy nan la ñuy gérer fonds yi leen jox waaye itam gën leen tàggat si li ñuy wax chaine de valeur ndax tey bu ñuy wax yar nekkul rek da ngay am jur bi sa kër commencé ko yar dafa am lu bari loo xam ni moom moo nekk ci ginnaaw lu mel ni jur bi lan la war a lekk état bi nag kat nañu jéem a tàggat ñi nga xam ne ñooy yar si li nga xam ne moo jëm si wàllum culture fourragère ndax fourage boobu tey dafa nekk alternative boo xamante ni dina permettre ñu mën a yar jur yi ñu am aliment de bétail boo xam ne aliment de bétail bu jaar yoon lay nekk. ñu ne boo waxee chaîne de valeur bi wérgu yaram bi nga xam ni moom la jur gi soxla itam daf si bokk loolu itam état def na si ay jéego yu rëy mais ONFP aussi daf si am loo xam ni ñu ngi siy liggéey maanaam ay métiers yoo xam ni tey danañu tàggat lu ñuy wax ay auxiliaires maanaam ay ndaw ñoo xam ni dañuy gën a jege euh, sàmmkat yi. di leen dimbali si saytu jur bi si saytu jur bi si seen wér-gu-yaram waaye itam si seen ay vaccination si lépp loo xam ne jur bi dafa koy soxla naam am nañ ay vétérinaire waaye xëy na lim bi matewul ni mu war a mate ba tax na ONFP commencé woon na waxtaan ak vétérinaire yooyu pour ñu xool nan la ñuy dugalee formation boobu nga xam ni day tax ñu mun a tàggat ay ndaw bàyyi leen si département yi ñu mun a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yar mais bu ñuy wax itam wàllum élevage dafa nekk itam xam-xam si wàllum métier bi waaye itam xam si wàllum gestion bi ndax ki nga xam ni da nga yore sa ay jur di leen yar bu ñu màggee da nga leen jaay di nga am xaalis nan ngay def ba xaalis boobu ngay gañe nga mun a continuer di ko investir si li ngay def mu nekk tam ay xam-xam yoo xam ne dafa jëm si wàllum management jëm si wàllum gestion jëm si wàllum marketing loolu lépp ONFP tey daf si tàggat ay ndaw cohorte bi njëkk nag mi ngi toll ci cent soixante-sept ndaw yoo xam ni ay góor ak ay jigéen tàggat nañ leen si ay métiers yu mel ni nan la ñuy rey yare ay ay jur maanaam embouche bovine ak embouche ovine tàggat nañ leen si nan la ñuy defee production animale ndax tey jii boo reyee xar bi nga war ko mën a utiliser nan lañ koy defee nan la ñuy defee tannerie bi loolu lépp dafa nekk ay mbir yoo xam ni dañ leen ciy tàggat pour ñu mën a am xam-xam bi ñu war a am waaye loolu rek du doy. ndax bu ñu bëggee am seen entreprise boobu muy li nga xam ni moom mooy entrepreneuriat il faut ñu tàggat leen tam si wàllum gestion loolu itam jàngal nañ leen nan la ñuy defee comptabilité nan la ñuy defee gestion nan la ñuy defee marketing ba am nañ yaakaar ni kat ndaw ñooñu nga xam ni formé nañ leen tey waa Fonstab nga xam ne ñooy suñu ay partenaires war nañ leen mën a nag jox financement ndax ñun am nañ yaakaar ne buñ ñu leen financé tey xaalis bi leen di jox dinañ ko mën a utiliser ba mu jural leen ay revenus yoo xam ni dinañ ko mën a delloo fañ ko jëlee woon yeneen ndaw itam daal di ko jël kon ñu ngi am contentement bu mag di remercier encore une fois le monsieur le ministre de l'élevage à travers madame la directrice donc des industries animales nga xam ne moo ko fi teewal tey waaye itam ki nga xam ne mooy coordonnatrice FONSTAB à travers également monsieur Eric nga xam ni bi ñu tàmbalee ba léegi moom la ñu àndal di liggéey ak ki nga xam ne aussi mooy directrice donc de l'ingénierie et des opérations de formation bu ONFP donc ñu taxawal programme bi nga xam ni jot nañu tàggat tey ay ndaw ci biir Dakar biir Thiès biir Saint-Louis Fatick itam am na yeneen corps yoo xam ne nag ñi ngi xaar ñu war leen a tàggat si région sud bi mais ñi ngi war a tam jot yeneen liste yoo xam ni waa force tam dinañ ñu ko jox ba ñu commencé leen tàggat tàggat bi itam dafa am solo ñu wax ni ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat itam dañoo am xarañte si liñ leen di tàggat ndax dañu nekk ay expert si wàllum élevage waaye itam ñekk ay docteur vétérinaire xam bu baax a baax a baax li nga xam ni moom la ndaw yi war a soxla ak la ñu war a am si wàllum métier pour mën a doxal li nga xam ni moom mooy seen entreprise si wàllum élevage ak si wàllum yar jur ñuy lancé itam un appel di inviter aussi organisation yi nga xam ni tey ñoom ñoo am si biir Sénégal di yëngatu si wàllum élevage tey boo jëlee li nga xam ne moo jëm si ay laadu mag yooyu am nañu organisation yu mag ñooñu ñëpp ñu ngi leen di xamal ni état teg na ay fonds yoo xam ne ñu ngi au niveau du FONSTAB ONFP war leen tàggat pour ñu mën a jot ci xaalis boobu pour que li ñuy liggéey mu gën a mën a am qualité waaye itam ñu mën a egg fi nga xam ne mooy autosuffisance alimentaire bi. wax ji lu muy gudd wala lu muy gàtt euh, kàddu kàddu cant la ak cantu ngërëm ci ñaari fànn d'abord ci ONFP parce que ñun au niveau de de FONSTAB dañoo xawoon bëgg a changer tuuti doxalin. parce que ci wàllu ciblage bi dañoo xoolan am na lu manqué woon ci ñi nga xamante ne dañu doon doon faral di financer mooy wàllu aptitude technique aptitude managériale euh, ak ci wàllu éducation financière ak ci wàllu entrepreneuriat. donc ñu ci bëri ñoo xamante ne jot nañoo doon am ay financement wàllu wopp dañ ci doon xaw a am daal lu ci gàllankoor. Euh, lu yàlla def nag lépp nag fi la dooree euh, madame Sow wax na ko dañoo jàkkaarloo woon stand contact am ak Masama. après ci la ci ci la départ donc véritablement mu nekk déjà collaboration bu bu am solo bu ñu ñu sant bu ñu bu ñu am satisfaction lu bare bare bare euh, di ñaan rek mu mu continuer mais juste pour rassurer et pour donner la bon nouvelle xam nga ñun ba ñuy signé ak euh, waa ONFP dañ leen waxoon ne tegal nañ leen benn ligne de 100 millions keroog ba ñu recevoir waa Thiès ne la leen ñun amaguñu satisfaction parce que 100 millions yaa ngi nelaw ba léegi amagul zéro mobilisation la parce que nag dañ leen waxoon ne juste après la formation dafa amoon ay étape parce que ci wàllu entrepreneuriat formation baax na formalisation baax na financement aussi moo ci gën am na ñi nga xamante ni dépassé nañ peut-être phase formalisation ak phase formation ñun fi may wax ak yow lu dul euh, onze projets kese kese kese kese lañ jot am dafa nag fekk ne lu tax tey cent millions yi mënaguñ ko woon mobiliser dañoo amuloon ay projets ñoo ngi commencé jot projet yi il y a juste 15 jours wala 3 semaines ba ñu commencé waajal mbir mi mu tombé nag ak opération tabaski parce que ñun FONSTAB euh, benn moment également dafa am lu ñuy lu ñuy prioriser moo doon opération tabaski ce que ñu ma rassuré ñi nga xamante ne nii ñoo nekk fii te jotoon déposer seen projet prochain comité bu ciy ñëw ñoom incha allah ci la ñuy bokk et puis ñu leen di ñaan également ñi nga xamante ne nii euh, jotuñoo formaliser wu ñu jéem a formaliser parce que da ciy gën Euh, baax na également entreprise indi euh, non euh, projet individuel duñ ko dàq wala particulier mais du lu ñu gënal lu ñu gënal mooy au moins ngeen formaliser wu ñi nga xamante ne nii ñoo bokk ci ay même gox wala am benn affinité wala bokk ci même filière bu ñuy yëngu. lañ leen di ñaan rek ñu gën a booloo formaliser ñu et puis ñun dañ doon wax sax bu ñu ci jegee ñi ñi nga xamante ni euh, jot nañ seen financement dañu leen oo wax leen ko mais également ñu jotagul ñu defaat benn porte ouverte parce que aussi il faut que information bi jàll de telle sorte que euh, bëgguñu suba euh, ñu ne ñii am nañ ñi la am nañu ñii dañoo leen boddi wala déedéet wala leneen leneen mais également dañ leen wax au niveau du Fonstab beneen nouvelle beneen nouvelle mooy le président de la république récemment daf ñu octroyé benn benn financement de 2 milliards mais 2 milliards yi da ko ne nañ ko jagleel lépp luy entrepreneuriat mais surtout ñu def li nga xamante ne mooy ñeenti priorité yi ci wàllu filière benn bi lépp luy euh, bétail viande la xam nga bétail viande dañ ciy intégré embouche reproduction ovine euh, bovine porcine et cetera mais également culture fourragère également dañ ko ciy boole. Euh, dañ ci boole lépp luy production et transformation laitière donc ak euh, lu ñu naan volaille ak ak production euh, d'œuf de poule. donc booy xool quatre quatre priorités yooyu ñun moom la ñu moom la ñu gouvernement bi ne nañ ko def. de telle sorte que ñu mobiliser ñu ci 2 milliards yi nga xamante ne récemment lañ ko mobiliser actuellement moo ngi trésor donc fekk ci nag. Euh, cent millions yi nga xamante ni tegoon nañ ko uniquement pour les bénéficiaires de du du euh, la formation avec l'ONFP moo tax nag ñu war a gaaw <laughs> xaw baral loxo yi parce que je pense que onze onze dossiers sur cent quatre cent soixante seize bénéficiaires bon je crois que également c'est c'est c'est très peu peut-être certains me diront que peut-être amuñu information mais ñun jot nañu ne am ngeen ay groupe WhatsApp yi ngeen di faral di partager yenn information yi. donc ñu leen di wax ne buñ ci jógee rek bëgg nañ ñi nga xamante ne nii euh, ñoo fi nekk ñu defaat beneen rencontre portes ouvertes pour au moins ñu jéem a xool nu ñuy mobiliser parce que c'est pas intéressant gouvernement bi teg sur la table benn fonds bi te fonds bi nit ñi mënuñu koo consommer te ni ñu koy consommer xam nañ yoon ñuy war a jaar pour mën ko consommer donc euh, DG euh, la balle maintenant et dans le camp du Fonds TAP et des bénéficiaires pour ñu mën a au moins xool les voies et moyens pour rapidement euh, mën a bénéficier wu ci ci financement yi di ñaan également euh, euh, yàlla doole ñu kàttan ba deuxième deuxième cohorte bi ñu mën ko commencer très rapidement et que être bu ñuy bu ñuy tasewaat fii déwén incha allah peut-être am ñu ñuy représenter nañu ah am nañ nangami financement fi lañ tolloon ex nañ fii Euh, ci ginnaaw yàlla ONFP ak FONSTAB ak ministère de l'élevage ñoo ko ñoo ko def donc loolu la amoon may sànni maa ngi leen gërëm di leen sant wasalaam. Euh, monsieur le DG euh, maa ngi am kontante ak cawarte bu baax a baax représenté fi tey monsieur le ministre de l'élevage Ali Salah Diop ministre de l'élevage et des et des productions animales di la transmettre donc nuyoom bu baax a baax. mais di la wax ne am na vraiment euh, contenté ci convention bi nga xam ne moo leen lié ak euh, euh, FONSTAB bi nga xam ne mooy instrument bu am solo bi nga xam ne ministère de l'élevage daf ko teg pour jàppale acteurs yi ci seen wàllu activité élevage donc muy wax ne rek vraiment seen convention bi lim ci seentu woon déjà mi ngi koy gis parce que li ñuy wax ci bu naree neex bu baxee xeeñ déjà ci première euh, étape bi euh, formé ngeen 160 euh, personnes muy ay ndaw ay góor ay jigéen ci ay modèles yu am solo muy embouche bovine embouche ovine muy culture fourragère muy production d'aliments mais aussi aviculture mu nekk ay domaines yu am solo ci secteur élevage a ah, yenn récipiendaires yi ma leen di vraiment di leen féliciter vraiment ci formation biñ leen defal ah, comme li ñuy wax rek ah, soxna si wax na ko léegi jàngal la nu ñuy nappe moo gën di la may jën waa ONFP lëkkaloo ak FONSTAB jox nañ leen formation yu am solo transmettre leen ay compétences foog naa ne léegi nag la balle est dans votre camp. waaw ah, ca da ngeen a am lu am solo parce que formé la ba pare FONSTAB taxaw ne yaa une ligne de financement pour donc financer leen defe naa ne loolu la la jeunes yu bare doon wut ak ak ak jigéen ak ñeneen ak ñeneen donc je crois que ah, chance boobu yéen ñëpp da ngeen ko war a saisir parce que élevage dafa nekk secteur bu am solo boo xam ne nii ah soxla nañ vraiment ay ay ndaw ay góor ak i jigéen yoo xam ne nii dañuy soobu ci biir. parce que bu ñuy wax modernisation du secteur de l'élevage si si si ndaw ñi lañ ko xaare ak si jigéen ñi ah, donc euh, li ma leen di wax rek euh, ginnaaw bi ma remercier bu baax man ci sama turu bopp waa waa ONFP waa FONSAP di leen wax ne rek il faut pas euh, donc ngeen toog di di di di xaar lu yàgg parce que nee nañ ligne de financement bi disponible na am ngeen déjà les compétences je crois que li ci des ngeen def seeni projet euh, def seeni plan d'affaires ñoo déposé euh, ñu financer leen ci di wax ne rek secteur élevage soxla na lool bu bëree bëree bëree parce que euh, dafa nekk secteur boo xam ne nii dafa bëri ay métiers yoo xam ne nii ñi ngi ci biir am na métiers yoo xam ne sax laala guñ ko filière cuir et peau mi ngi fi les tanneries ñi ngi fi ay jigéen ñu bëri ñoo fay yëngu am na filière apicole boobu aussi jigéen ñi ñu ngi siy yëngu ak góor yi te yooyu yëpp defaguñ ci ay formation euh, donc je crois que euh, euh, li ñu def tey lu am solo la may wax encore une fois sama sama kontaante encore di remercier bu baax waa ONFP waa FONSAP ah, di leen ñaanal yéen aussi li ngeen liñ leen jàngal yàlla na ngeen ko muurloo. salaamaaleykum. Euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dooree nuyoo bi ci kilifa ONFPA bii fi nekk di jalle sama nuyoo yóbbu ko ci waa ministère de l'élevage ndax euh, ci turu session yi amoon euh, à Dakar à Fatick à Thiès et Saint-Louis la ñuy waxee ni ndax nit bu la defalee loo mënulul sa bopp nga ni ko jërëjëf di yëgal nag gaañi ken fi ñu toll dañuy soog a démarrer activité boo xamante ni nous avons rendez-vous avec l'histoire ku ci nekk na jàpp ni lay tax bu ëllëgee ñu mën a sigg ci kanamu ñi ñu choisiroon ba ñu def formation bi ci yow la dépendre nous avons toujours fait appel à ce que état jàppale euh, les acteurs euh, de l'élevage lay amatul xam-xam bi ñi ñu tànnal ñi ñu tànnal ñoom mam Mame la ak euh, euh, ñoom Issa Dabo nga xam ci côté marketing bi liñ ñu waroon a xamal yëpp macha allah xamal nañ ñu ko la ca des mooy li euh, ñaan peccum liir bu neexee dañ nday jaatee ca mbagg ya ñu dàq ginaar waxaale suñuy soxla nañu fexe ba nga xamee ni suñu coopérative yi au niveau de chaque chaque session ñu def comme ni waa Thiès def am coopérative boo xamee ni ñun suñu bos ma kaas lañ ko tuddee coopérative ànd suqali suñu élevage ñu bëgg ñu jógee ci loolu dem ci biir section yi waa Dakar waa Thiès waa Bambey waa Kër Ibra waa Xombol euh, ku ci nekk def GIE boo xamante ni action yi ñuy mëne coopérative moom ma koy coordonné su loolu amee ñu sañ yaakaar nag que ni ñi ñu defal formation bi dinañ ñu tette tuuti ba ñu mënaam a am ay conditions de facilité ci wàllu accès au financement suñu su loolu amee yaakaar naa ni ba di déwén ñu waat fii def évaluation te bu boobaa yaakaar naa ni incha allah ñun ñëpp dinañu siggi encore une fois de plus ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di gërëm kilifa yi nga xam ne ñu tànn ba tey ñu am xam lu ñu xamul ndax dañ doon dox ku nekk sa xel mu neex waaye yaakaar naa ni fit élevage jëm euh, nga xamante ni boo koy def te bëgg ci am lañ ko am bu dee caawo bi la wax nañ leen ko ndax baykat moo mën a jox càmm léegi nag comme baykat bi am na lu mu bëgg càmm gi am lu mu bëgg yow sàmm bi da ngaa war a bàyyi xel ni danga war a am euh, accès au fourrage da am accès au concentré nañ koy defaree xam nañ ko euh, fañ koy defee xam nañ ko yaakaar naa ne bu ñu delloo tari moo ci des encore une fois de plus ñu ngi leen di sant. information.